muy waa Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni Nuuru Daarayni yi ci réew mi di Sénégal ak bitim réew jox nañu sang bu tedd bi Soxna Aïda Saliou Thioune tey ci bisu màggal gi soixante dix millions cent cinquante boole ko xeet jërëjëf Thioub yàgg ci tawet Thioub ñoo ngi lay tuubal li mu xam ak li mu xam mboole seen daaru salaam man la bu faw say ñoo ngi lay tuubal ñoo ngi lay sant sant bu amul fu mu yàq Thioub taalibe bopp ji ñoom ñëpp ñu ngi naan jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio ci dimbali gii nga ñu dimbali ci tànn gii mu ñu tànn ci tawféex bii mu ñu defal te xamuñu dayo bi muy doon gi ñu doon sa taal bi jërëjëfati Serigne Béthio ci dimbali gii mu ñu dimbali boole ñu ci yeesalam bi soxna yi da jërëjëf ñu ngi sant Serigne Béthio yaay dëggi dëggi Serigne Béthio waaye di tudd Serigne Béthio moo la neex jërëjëfat Serigne Béthio ñun ñu ngi lay tuubal lu ñu xam ak lu ñu xam barki Serigne Béthio ñu lay sant ñu ngi sant ci nii nga ñu dimbali ci nii nga ñu def ci nii nga ñu sagale barki Serigne Béthio boole seen sa taalu bi sago mboole seen sa bi damu na mboole seen sa taalibe siddali cun cun sagal nga ñu cun teral nga ñu cun dimbali nga ñu defal nga ñu ñu bëgg sëriñ Béthio defal nga ñu ñu gën a bëgg sëriñ Béthio ndax yàgg nañ koo bëgg waaye dim yokk nga suñu bëgg yokk nga suñu ngëm barki sëriñ Béthio fu waaye ak sëriñ Béthio dañ koy gëm barki sëriñ Béthio ñun sant nañ la sant nañ Serigne Béthio ci nii mu ñu dimbali def ñu say taalibe barke Serigne Béthio ñun yaay sax yaay ndam Serigne Béthio mooy kenn Serigne Béthio mooy kenn yow yaay kenn cuub nga def àdduna sa melo bii Serigne Béthio nii mu la def ñun dimbali nañu Serigne Béthio dimbali nañu ñun kàddu yi daa fees ci xel xol yi dafa fees ci xel yi waaye lépp. lenn tepp la jëri jëfati Serigne Béthio sant nañ Serigne Béthio Thioune barki Serigne ñoo la bëgg ñoo la gëm ñun jërëjëf jërëjëf soxna yi lenn rek nañuy ñaan Serigne Béthio nga jëmm jéem mu bàyyi ko mu yàgg lool ñun nga yàgg di wér nga yàgg di yees saa yoo génnee Thioune suñu xol yi ñu Thioune jërëjëf Serigne Béthio jërëjëfati

jërëjëf Thioune ñu ngi koy xeex lool jërëjëf Thioune moom Thioune sa ndimbal ci ndimbalu Sëriñ Béthio mais xeex nañ ko lool dajale nañu àddiya boolee seen Daaru Salaam Sénégal étranger ñu ngi toll ci soixante-dix millions suñu nii ne professeur te lu ko baaxul sant loo gën ab sant ñun ñii boo seen ñoo la bëgg ba gëmewuñu la doon bi ñu sa taal bi la ñu gëmewuma gëm tey jii yóbbu nga ñu seen béykat foofu kenn ci ñun xalaatu woon mbaa mu njort ko ne mënees na fa àgg ñi nga nu yeesale yeesal tëntam bii sagal na ci kanam àddina illaahi anu sagal nit ñi ñun ñëpp am ndam boo lisee ñun ñëpp am ndam ka li may ndam bi mooy keroog boo bee Não, Damião, atendi. def lu bëri suñu biir xeet def lu bëri ci bëri bu ñuy liggéey kenn yemul ñun ñii nekk bitim réew mi bëri bu ñu dugal bu ñu war liggéey kenn yemul ko te kenn ku ne suñu faxane yaa ngi jiite dañu dimbali seen bécc bi ñu ko sant sant sant ba ba tax li mu ñu defal te jëmu di tëdd ndax nga fi yàgg tëral ñii ñaan seen bécc wala mu xam suñu xol yi duñ ci sa jëmu ji mu fees ci dell dootuñu sopp dara lu ñëw tey ci yow rek la ñu mën daanaka fi yàgg tëdd loolu dëkk